al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibaadihi alladina stafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ci al ibaadatu wal xidma noo ngi leen di nuyu di leen siyaare ñu fas yéene tontu ay laaj yu fi dikk toll ci fukki laaj ak ñaar bi ci njëkk moom xam naa borom sax dana laaj la waaye dëgg-dëgg xalaat la gën a doon xëy na luñ ci mën a jàppe laaj xalaat kon dañuy laaj ndax bokk na nag moom xalaat wala déet mooy ki wax ci ne dañuy faral di wax naan sëñ bi yoonam amul tànki ginnaaw tànki kanam la am te moom mu ne dee nit ñi moom taalibe daal léegi la ñuy def loo xam day mel ni tànk ginnaaw <laughs> eh, mu ndax lan mooy lan mooy kon yoon nit ñi wala mooy lan loolu de man li ma ci daan wax mooy yoon wi dafa am lu ci sëñ bi moom ak lu nu ci moom noonu mooy dañ ko seq ak sëñ bi lim ci moom moom lépp lu ñuy wax naan tànki kanam la am amul tànk ginnaaw wala moo ko sàmmal boppam dafa jëm ca lam ca moom mooy la ko ca ñor la ko ca yitteel yi nga xam ne nag suñ njariñul bopp la nun damay jàpp ne nun noo koy noo noo sàmm noo ci taxaw wala boog leneen man caa am dama koy faral di misaal ci jëmmi lislaam ci boppam lislaam li ci li li li ci dëgg-dëgg li ci li ci li dëgg dëgg mooy gindi ñi xettali leen ëllëg ëllëg waaye lislaam amaale na it ab nos akub jàppoo goog bu ko jullit ñi defee seen njariñ la ñoom loola moom luñ ca luñ ca taxawe rek man ko caa am waaye luñ sàggane te man koo ñàkk yonent bi mu fi nekkee lislaam amoon na genn kàddu ba ñu ko njëkk a waaye mujj na dem ba kàddu ko gi amatu ko ba tax na mu ñàkk lu bari bu ñaan lislaam foofu nag jullit ñi la ñuy wax kon ba tax ñu ñàkk lu bari ci euh, loo xam ne seenu bennoo mayoon na leen ko te jëmmi lislaam ci boppam moom day yokk di gën a yaatu waaye nag doole ak man-man bi jullit ñi amoon moom ñàkk nañ ci lu baree bari murit gi itam noonu rek laa jàppe li ci sëñ bi moom moom mooy njub gi ak xet li xettali nit ñi ëllëg loolu moom bu nit nekkoon mbampana te nekk ca loola nit nekk Tokyo ca Japon te nekk ca loola nit nekk Shanghai ca Chine te nekk ca loola nit nekk Philadelphie ca <coughs> Amérique te nekk ca loola fu nit nekk ci àddina bi ca loola rek kon mbirum sëñ baa ngay dox lii nga xam ne nag mooy nos bi ñu nos naan lii mooy yoonu murit nii la tëdd nii la doxe lii la sottal lii la bëgg lii la am loolu moom dama foog ne sunu mbirum bopp la moo xam ne euh, noo koy taxaw buñ ko taxawoo mu mën a wéy mën naa amal njëriñ waaye buñ ko sàgganee itam nag mën naa dem ba àddina sëpp sax kenn dafa dugg déggati tudd yoonu murit te du tey yëfi sëñ bi moom di dox kon buñ naan tànk kanam ak tànk ginnaaw tànk kanam moom mooy jëmmi sëñ bi ci boppam ngiram la ko ñor moom jëm kanam rek lay def bu soobee yàlla lu jëm ginnaaw waaye li nga xam ne nag ñi ko wuyu si ñoom seen seenu ànd ak seenu booloo ak seenu nos lam leen di jëriñ loola moom ci seen seen mbirum bopp la luñ ci taxaw mën naa wéy mën naa am njëriñ waaye luñ ci sàgganee tamit mën naa dem ba kenn du ko déggati sax loolu mooy li ma li ma daan yàgg jàpp man ci ci lu mel noon ñaareelu laaj bi mooy ki wax ne ko dañ koo may jigéen boobu xamutoon ne daf ëmb waaye nag dafa ëmb ëmb boo xam ne kon ci keneen la ko jëlee loolu moom moom mi laaj xam na ne dañuy dañuy firi say boobee mooy wayu baaxut waaye day laaj ndax buñ ko firee ba noppi ginnaaw bi dana ko mën a takkaat bu dee lu mel ni dañ naan du ko mën a takaat duñ mën a seeti mukk ñoom ñaar bu fekkoon ne kii ko mbal la ki mu a ëmb moo ko takk ci biir ëmb bi ba tey dañ koy firi waaye kooka nag la borom xam-xam yenn yi di wax ne moom moom mën na koo takkaat waaye nag bu dee ki ki kiñ koy may bokkut ak ki mu jële ëmb bi moom Euh, kooku buñ ko firee duñ ko mën a duñ leen mën a waat ñetteel laaj bi mooy day laaj euh, ni nga xamee ne bu ngénte amee ni ñuy tollalee bu ñuy tudd liir bi ak bu ren rendi xar mi tollale ko ak ni ñu ciy xiir ak ni ci ciy sonne daal ndax mu ne jar na ko wala noonu la war dëgg-dëgg jaru ko de jaru ko ndax yaar yu bokkut la yaar yu bokkut la yoo xam ne lu ci nekk dañ ko war a def waaye nag bokkuñ bu dee ngénteli moom mooy gàtt bi bi ñuy rey boobu moom la ñuy def ci juróom bu juróom-ñaari fan matee bu dee tudd nag mën nañ koo def bu juróom-ñaari fan mën nañ koo def la ko jiitu mën nañ ko def la ko jiitu kon buñ ko dee def ci benn bis bi it firiwut na dañ dañ ko war a defandoo naan ni mu ko waxee ñuy tër xar mi téye paaka bi am ñu taxaw di déglu buñ ne bisimilah rek ñu daal di kii loolu xëy na suñ doxinu bopp la rek waaye nag jëru jërewu ko noonu daal kum neexoon bisum ngenteem euh, man naa man na boobu fajar xasee jot rek man naa rend xar mi bàyyi ba yor yor mu tudd bu fekkee tudd doon la jiitu loolu tudd mooy jox ko tur rek jox tur liir bi rek fekkee def kon la ko jiitu mën naa ba yor yor mu tudd loolu dara new ci ñeenteel laaj bi mooy kii dafa wax ne day liggéey ci li ñu tuddee transfert transfert d'argent mooy ñi nga xam ne dañu jaarale ci ñoom xaalis daal ñuy jokkalante xaalis di ko yóbbante euh, di ko yónneente ñu ñuy dox seen diggante euh, mu ne nag koo ci xam ne da ciy liggéey te mu ne yi ñuy yónnee bitim réew mu jëm si ci biir réew mi ñoom lañ cay am te dul bari moom lañ tuddee commission mu ne ndax koo ci xam ne ci ñoom la nag bu jotee yoon yoon neen bu jóge bitim réew lam cee am du bari tax mu wax ki moom kiñ koy kiñ koy yoon yenne ki ko moom ne ko dama ci jëlaat nangam lu bokkut ak lam ca waroon a jël rek euh, loolee mu ca yokk ne ndax ne ndax dagan na ah bu fekkee bala mu ko jël kooko da cay ànd de nga xam da koy won ne daal boo ci àndee la boo ci àndee mu jël ko boo ci ànd duma ko jël bu dee loolu la moom bu dee noonu la demee moom dana ko sañ ndax bu ci àndee mooy da koo may rek waaye nag bu ko wan ne àqam la wala daa ta ñàkk loolu bu ko defee moom daa jël àqam ndax àqam moom mooy commission bi nga xam ne fixé nañ ko ginnaaw dañu ne yeneen bu jógee bitim réew commission biñ ci am nii lay demee bu jógee ci biir réew mi nii lay demee waaye nee na bay jógee bitim réew lañ ci am daa gën a néew tax mu ndax mën na koo mën na caa yokk dara loolu da cay dëppoo ak ki ko moom kim jëm bu fekkee dañ cee dëppoo tam xamee ne dëppoo gi mooy tax mu wéy kim jëm xam ne mu ànd ci mooy tax mu wéy boobaa dana baax waaye bu demee noonu nag du baax juróomeel laaj bi mooy ko wax ne ku sang woon janaaba cim ndox ba noppi bam des lam des ndax keneen mën na cee sanguwaat janaaba Euh, loolu mooy juróomeelu laaj bi loolu mën naa nekk mën naa nekk mooy nit mën naa sangu janaaba cim ndox ba mu des lam des keneen sangu ci janaaba loolu daal nekkut mooy na fexe rek ba sobe du ca du ca duggaat rek sobe du ca duggaat rek benn laaj bi day wax ne ndax euh, sàcc sàcc gi waral dagg loxo ndax nu mën di toll rek la wala am na nu muy toll dëgg loxo door caawar bu dee fu ñuy atteewoo atteeb lislaam waaw am na nu muy toll am na nu muy toll noona it mooy li ñuy tuddee ñetti ñetti ñetti dërëm ñetti dërëm ñetti dërëm dërëmi ngurut kon mooy lu mën a jënd ñetti dërëmi ngurut daal mook ñuy wax ne ak can am na lu munta yées ñooña bu dee ci ngir ngirum Malik li ak can munta yées mooy loo xam ne danga ko sàcc lu ñu toll moom la ñuy mën a dagg loxoom ak yeneen sart yu ànd nag waaye ci wàllu liñ sàcc nu mu toll moom daa am nu mu war a toll bu foofu dees ci dagg ab foofu nag ñu xool sart ya ca des yëpp dajee nag ci lañuy dagg loxo ku ñuy dagg loxoom juróom-ñaareelu laaj bi mu ne rab woo xam ne day dund ci jéeri di dund ci géej ndax bu meddee dana dana dagana lekk dëgg-dëgg loolu la war a laaj moom dana laab la wax waaye foog na dagana lekk ci la war a laaj lu bëgg laaj ndax yonent bi loolu la waxoon dane woon géej mooy li nga xam ne euh, ndoxam laab na man naa laabal te meddam itam dagan na xam na foofu la su ko ne koy laaj laaj kon dagan xëy na la bëgg bu boobaa nag ginnaaw day dund fii di dund fee dañuy xool fu ci ëppee lu muy dund bu dee li ëpp ci dundam ci jéeri ji la koy def muy ci suuf si kon dañ koy jàppe rabu suuf kon bu meddee du dagan bu dee ëpp ci dundam nag ci ndox mi ci géej gi la koy def dañ koy jàppe rabu géej kon bu meddee dana dagana rek juróom-ñetteel laaj bi ma dafa dégg kuy wax ne nitug yàlla mën naa njaaloo mën naa naan sàngara waaye nag du wax amut du fen mu ne kan wala lan mooy nitug yàlla ba noppi ak it fan la tegeeg ndax ndax ndax daal nii la demee nitug yàlla de foog naa nitug yàlla mooy ku féeteeg yàlla lay fiir ku féeteeg yàlla la arab ak alquran ak lislaam di tudde wali waliyullah waliyullah ki féeteeg yàlla waliyullah la waaye yàlla itam waliyoom la mooy kon dafa féeteeg yàlla wa yàlla daa féeteeg moom moo tax yàlla di wax bi mel noonu ci alquran allah waliyu alladina amanu kon nit ñi ñii dañoo féeteeg yàlla yàlla féeteeg ñoom ñii féeteeg seytaane seytaane féeteeg ñoom kon ku féeteeg yàlla rek eh, nitug yàlla la ah, dañ dañuy rawante nag féete gi dañ ci rawante lool lool lool ni ñuy firee wal yi mooy dañ naan te alxuraan ko fee noon sax mooy ku gëm tey wattu yàlla di ko wattu mooy di def lim digle di moytu lim tere alxuraan ne nag kooku mooy ki féete yàlla kooku mooy wàllu dañ ci rawante nag ñi ñi dañoo dem nag ba mu juba ña ca lool lañ koy tudde ña àggut ca fan jàpp ne moo fekk mooy fu kawe fa duñ leen ko tudde waaye ñoom ñëpp moom lañ képp ku di ab jullit tey góorgóorlu ci li yàlla digle di moytu lim tere rek kooku wàllu yu wàllu yàlla la mooy ku féete yàlla la nit ñi nag ci seen waxinu bopp ñoom ñoo dem ba di ko jagleel ña gën a kawe rek ñu gën a kawe te àgguñ ci yonent ñoom lañ koy faral di tudde waaye yonent bu gën a kawe sax ci la bokk ñu gën a suufe ñooñu ñuy wax itam ci lañ bokk kon euh, loolu dëgg-dëgg daal mooy wali comme ci man doon nag gannaaw wali ci bopp yàlla yàlla alxuraan moo wax ne mooy ku gëm tey wattu yàlla te wattu yàlla borom xam-xam ji lislaam yëpp firee ko def yàlla digle ak di bàyyi li tere mooy li nit ñi daan ragal yàlla loolu lañ firee wattu yàlla moom lañ firee ragal yàlla te ki ragal yàlla te gëm ko mooy wali kon mënuñoo wax ne kooku dana ñaan sàngara ak njaaloo ndax loola du moytul yàlla du moytul yàlla tere te ki moytul yàlla tere mooy doon wali kon loolu mënuñoo ànd dëgg-dëgg mënuñoo ànd juróom-ñeenteel bi mu ne sun réew yi nga xam ne ay jullit dafa nekk duñu àttewoo li yàlla digle duñu àttewoo yàlla digle ndax bu ëllëgee yàlla danañ danañ ci àtte daan na ko jàppe waaw loolu dañuy xam ab àtteem ci bopp rek àttewoo li yàlla digle li yàlla digle ñu àttewoo ko dañ naan farata la ci mbooloom li ñu tudde fardu kifaaya lu ñu naan farata ci mbooloo mi nag mooy kon mbooloo mépp war nañoo taxaw ba mu am war naa am war naa am war googu nag ci mbooloo mépp la war waaye du ñu sàngam ma ko war a amal wala diw sàngam war a amal waaye daal mbooloo mi war nañoo taxaw ba mu am bu amee ñu taxaw ba mu am kon farata ji wàcc na ñëpp mooy farata ji nañ ko kon ñëpp wàcc nañ kenn du ci ay daan bu fekkee nag defuñ ko sottaluñ loola dañuy xool ndax am na ci ku jéem ku ci jéem ba def ca lam man moom wàcc na ku ca jéemut nag wala àggu ci fam ca man koo ko wàccut am na nag yu ci aju bu dee lu mel ne atte wa atteb atteb yàlla atteb digle am na yu ci aju Euh, bokk na ci nit ñi nit ñi nangul nangu ko nit ñi nangu ko nit ñi du ñëw galeen ko yonente bi gawu ko woon jullit ñi bi yàlla di laata wàcc atte daa bàyyi ba jullit ñi doon seen am mbooloo mu ci ànd mu door ko wàcc waaye ba nga xamee jullit ñi amuñ woon baat fañ nekkoon muy màkka wàcc wotoon atte yi biñ demee ba Madina <coughs> fu ñu am baat nag te euh, maase bëgg ko foofu lañ wàccee atte kon feneen fu man tam sart yooyu mooy tax ñu mën ko faa doxal waaye nag <coughs> jaadu na ñuy sabablu nag ba nit ñi bëggal ko bëgg ko bëggal ko seen bopp kon lu foofu la war a tàmbalee ay jullit dañoo war a fexe bañ bëggal seen bopp àtteb yàlla bu bu ñu àggee foofu nag ñu fexe bañ bañ koy doxal di ko jëfandikoo ñaar yooyu yëpp nag ku ci jéem ku cay jéem lam ca man wàcc na ku ca jéemul nag wàccut kon bu sottiwut ña yàlla di laaj ëllëg mooy ña nga xam ne jéemuñ ca ak ña nga xam ne sax ñoom beneen at da leen a gënal ñoom ñoom ñoo ci raw ñoom sax euh, dañuy jàpp ne duñu ay dëgg-dëgg bu fekkee xam nañ lañ lañ lañ lañ lañ lañ def xam nañ li muy firi boobaa kon duñ leen jàpp sax ay jullit waaw fukkeelu laaj bi mooy da ku fa asaka war waaye mu am soxna am su wéradi wéradi goo xam ne daal paj mi day laaj xaalis bu bari ndax kon dala mën euh, aj asakaam bañ koo joxe ren bàyyi ba déwén lim na doon jox asaka mu ko ci pañ mi foofu dañuy xool dañuy xool lu ci njëkk lu ci jiitu ndax wér wéradi gi moo jiitu wala waruk asaka gi moo jiitu bu fekkee asaka gi ak dafa war ba noppi fi koy laata génnee wala fi koy laata joxe ci la soxnaam wéradi wéradi googu kon asaka ja moom moomu ko moomu ko moomu ko da koy joxe da koy joxe ndax dafa war ba noppi moom ba noppi moom da koy génne bu doon ne wéradi gaa jiitu nag te lam ca war a def ñu xam ko xam ne lii la war a la dugal ci wéradi gi boobaa loolu day yitte ju teew joo xam ne li nga xamee ne asaka ci aw des lañ koy génne kon la des ginnaaw yitte jooje ci lañ koy génne la des ginnaaw yitte ju teew ji farata ji mel na rek bu waroon a joxe dépense tey la mu joxe dépense tey kenn du kenn du te kenn du te génne la aw des ci li ñu bu fekkee daa war a joxe dépense tey ta asaka ji tey lay war li mu joxe dépense tey des ko limaale moom ci alalam bu dee soxna si daa wéré di xam na lim ci lim ci war a fay ba noppi asaka ji door a war kon lam cay fay moom duñ ko limaale ci alal yi ñuy génne asak bu dee asak yi war ba noppi nag wéra diggi doora am booba moom day génne asaka bu laajee sax bu génnee asaka ba noppi bay faj soxnaam ba dem ba mënatut mënat mënatu mënatu ko matal dana am sañ-sañu laaj ñu jox ko ca asaka ji moom itam asaka ji mu joxe woon moom joxe woon na asakaam bañ jox ko bañ jox ko bañ jox ko ñenn ñu ko yaayoo moom it dana sañaay laaj ñu jox ko ci asaka ji ndax yaayoo na ko moom itam waaye yaayoo asaka du tey asaka waree mu joxe ko laaju fukkeel ak benn mu ne lay laaj àtteem ak it lii ñu bari ñu bari laay rek ñu bari ci nit ñi bu leen ilimaan jiite bu demee ba sujjóot ba muy mujj sujjóot bu cay siggi kàbbar bu muy kàbbar ne allahu akbar ñoom ñoom it bu kàbbaree ñoom ñëpp dañuy kàbbar ca kaw te yi ci des duñ ko def yi ci des dañ ko def ci suuf loolee la ci àtteem bu dee xunut moom àtteem ci ngir mi mooy ñu sopp la lu ñu sopp la lu ñu sopp la mooy kon du farata du sunna moo tax ba bàyyi du yàq julli bàyyi ko itam du waral sujjóot euh, bu dee nag leer moom nit ñi koy defal seen bopp rek xaw ma ko teg kabar yi jiitu yëpp ñu koy wax ci suuf biñ demee ba ca mujj ba nag ñu ñu ñu koy man na ñu koy ñu koy wax ci kaw ñoom ñëpp loolu nit ñi koy def xaw fuñ ko teg nuru na ma nag waaye loolu nuru rek laay wax dama nuru ne daal dañ man dañoo yàkkamti woon day man dañoo ngéeje ak agsi fii ñu agsi daal nga xam day man dañoo dañoo sonn daal dañoo sonn ci julli ba di ko wane mel ne ku naan waa kay nag jeex na nag léegi waaye daal amut amut amut fu tege moom amut fu tege amut leen luy waral ñu wutale kàbbar boobu ak kàbbar ya des fukkeelu laaj beeg ñaar te moo ci mujj dane ku ñu rawe benn ràkka ku ñu rawe kon mooy ñaareelu ràkkay ilimaan ji moom mooy rakkaam bu njëkk ilimaan bi mu jullee ñaareelu rakkaam ba sujjóot ñaari sujjóot yi day toog taaya mooy laaj moom moom ñii ñu raw nag nga xam ne benn rakka la am nii bu ilimaan di toog di taaya ndax day taaya moom itam wala day toog rek bu ilimaan jógee mu àndaat moom jóg ki ñu raw bu xasee dugg ci julli gi ba ba ilimaan di sëlmal lu ilimaan def da koy def lu dul sëlmal ga la du def ak it lu ilimaan di def ginnaaw bu sëlmale waaye lu ilimaan di def lu jiitu muy sëlmal rek lépp da koy defandoog moom bu ilimaan defee ba noppi da koy def bu ilimaan toogee mu toog bu ilimaan taaya mu taaya bu ilimaan lu def rek mu def ko bu ilimaan demee bay sëlmal nag moom du sëlmal bu ilimaan sëlmalee moom mu jóg mottali loolu kon mooy laaj ji fi ñëwoon di fukk ak ñaar maa ngi jéggalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.